mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan yàlla buur bu ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ndax lañ koy ñaan ni ci moom dong la nekk moo ko yore moo moom moo koy dottil jaamam yi kon dara duñu war wala dara waruñu ludut ñu ñaan ko mu yokkal ñu jàmm ji nekk ci moom ba tax nañu di ko ne allahumma anta salaamun wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daar salaam amin ya rabbal aalamiin mbokk yi yal na yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne ñaan ba ñu ñaan ni mooy xëywal ya nekk fa yàlla te mu jagleel ko jullit ba dëkk loxoom di ko ko ñaan rawatina yow mi bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow moomu la buur yàlla ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen woo leen ma ma wuyu leen sakku leen ci man lépp li mébét ak lépp li ngeen ma fajal leen ko ba tax na ñu nit ñu ngi dikk suñu yoxu di ko ñaan di ko ne buur yàlla ñuŋ lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm ya nekk fa mboolem xeetu jàmm yi ci yow la ñuy bàyyeekoo mboolem xeetu jàmm yi ci yow buur yàlla lañuy ñuy dellu kon ñu lay ñaan yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla nga ñu may jàmm ci suñu réew yàlla nga ñu may jàmm ci suñu territoire ba nga ñu wërsëgal ñu di ko dund yàlla nga ñu dundal ci jàmm bu ñu noppee ci dund bi tamit keroog bu ñuy dajeek yow yàlla nga ñu may jàmm waaye keroog bu ñu noppee ci dund bi tamit ëllëg bis pénc ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu wóor sëgal nga tàbbil ñu ci këru jàmm ba nekk fa yow nga xamante ne mooy at jànn mbokk yi yan nañu yàlla nangul lañ ko ñaan ni amin ya rabbal alamin xam ngeen ne bokk na ci la bur yàlla tabaraka wa taala baaxee suñu sang bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa importance ba nekk ci ñaani yàlla ngir mu defal la télé wala importance ba nekk ci ñaan yàlla ngir yàlla defal la li nga mënul lala keneen mënula defal li nga xamante ne yàlla rek moo la ko mën a defal kon yow doomu aadama bi ak bépp diine ba nga mën a nekk di ko dund lara war mooy nga tàllal sa loxo buur yàlla ne ko ma lay ñaan la ma tëli lay ñaan la mënul waaye rawatina yow mi yàlla wërsëgal nga bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñaan yàlla bu dee ñëpp la war kon yow danga ci am particularité bi nga xamante ne keneen ku dul yow amu ko ci ba tax na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ñu ne ci maana xadis nee nañu addu'aa huwa al ibaada ñaan yàlla mooy dëggintaan jaamu yàlla ci beneen xadis mu ne ñu addu'aau muxul ibaada ñaan yàlla de bu fekkente ne mënees nañ koo melale ñu ne muy yuuru jaamu yàlla bu jaamu yàlla bopp la yuuram mooy ñaan yàlla dëkk sa loxo di ñaan yàlla ndax yàlla moo ne ñaan leen ma ma may ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaan yi matale yam doon ñaan boromam subhaanahu wa taala ngir xeetam nar see sukkas ndikku niitoo ci ñaan yooyu yonent bi di ñaan boromam sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yonent bi da doon ñaan boromam ne ko allahumma rahmataka arju falaa takilnii lii nafsi tarafata aynin waslix li sha'ni kulluhu laa ilaha illa ant mbokk yi ñaan bi ñaan bu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko doon ñaan boroomam subhaanahu wa taala ndax ñaan bi dadi ñaan bi nga xamante ne keneen ko dut yàlla amul kenn ku ko wara a mën a defal jaam bi waaye keneen kudut yàlla amul yow jaam bi waroo koo ñaan keneen ndax mënu ko xamu ko nekkut ci loxoom kon yàlla mi man moom nga koy ñaan yàlla mi ko xam moom nga koy ñaan kon yàlla ma ko yore moom nga koy ñaan ngir mu defal la ko la ñaan bi tekki nag képp ku bëgg a xam topp ñu ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi mbakk yi ñaan bi la muy tekki mooy yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam daanoon na ñaan boromam ne ko allahumma buur yàlla buur bu kawe bi allahumma buur yàlla buur bu tedd bi rahmataka arju mande ba nekk fa yow laa yaakaar de sa yërmande yu matale yi sa yërmande ba yaatu bi sa yërmande ba nga xamante ne kenn xamut nu mu toll kudut yow sa mande boobu laa yaakaar de kon ma lay ñaan falaati kilni lii nafsi tarafata ayn yàlla boo ma musa bàyyee sama bopp lu toll ni xëpp ak yàlla boo ma bàyyeeg sama sago lu toll ni xepp xippi yàlla sama lépp mu doon ci sa contrôle bi nga xamante ne yay orienté sama organ ak sama xol jëmale ko ci lépp li nga bëgg mu doon la nga gërëm kon maa lay ñaan kill takilnii lii nafsi tarafata ayn yàlla boo ma musa bàyyee sama sago ndax boo ma bàyyee sama sago ma dugg fu ma waruta dugg ndax boo ma bàyyee sama sago ma def la ma warut def kon ma lay ñaan yàlla nga ma contrôler ci li ma yëg ak ci li ma yëgul yàlla boo may defloo nanga ma defloo la nga xamante ne dinga ko sopp mu doon la nga gërëm kon ma lay ñaan falaata kil nii yàlla boo ma bàyyee nafsi ci sama sago tarafata ayn lu toll ni xëpp xifi yal naa musa doon ci sa contrôle yàlla nga doon kamay womat jëmala jëm di ma ci lépp la nga bëgg mu doon la nga gërëm ba tax na maa lay ñaan bi léegi waslix lii sha'ni kullu maa ngi lay ñaan yalla nga ma yéwénalal mboolem samay mbir ya xam ya xamul yama ma xalaat xalaatut yàlla nga ma ka yéwénalal mboolem seen ndax yow yaay yàlla wi nga xamante ne laa ilaha illa ant amul benn buur bu fi nekk di yàlla kudut yow yàlla kon xeetu format ñaan bi yonent bi mooñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ñu nit ak mboolem auditeur ya ñuy topp ci Rewmi FM ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi mboolem seen ñu ngi dékk suñu loxo di ñaan yàlla di ko ne allahumma rahmataka arju fala takilni li nafsi tarafata ayn waslih li sha'ni kulluhu la ilaha illa ant baqi yan ñu yàlla boole nangul defal ñu la ñaan bi di tekki amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne dafa bokk ci jikko ju baax ji nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa baaxe nañu ko ci dundam waaye mu wax ñu ko ci kàddoom yu matale yooyu ci kàddoom yu sell yooyu kàddoom yi nga xamante ne buur yàlla daka ci sellal tagg ko ci mu ne ñu maa kadaba al fuaad maa gémmiñ bi de waxul dara lu mëngewul ak amul lépp lu gémmiñam bi di wax sallallahu alayhi wa sallam da di digg ju wér ba jóge ko fa yàlla buur bi tabaraka wa taala yàlla buur bi tabaraka wa taala sellal na ko ci kàddoom bi kàddoom yu matale yi ak kàddoom yu sell yi mu ne ñu laa yantiqu anil hawa yonent bi sallallahu sallam daawul wax ci coobare bakkenam ba tax na lépp lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla moo ko ko waxyu moo ko ko déy ba tax na ñu nit ñu bëgg leen andil lenn li nga xamante ne mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam baaxee askan bi waaye lu jiitu loolu alquran moo ñu ko njëkk andil mu doon téere bi nga xamante ne moom la jullit yi yore ci territoire suuf si ñu di ko jàng mu doon alquran bi nga xamante ne mu ngi jóge ko fa buur yàlla tabaraka wa taala mbokk yi bu ñu demee xool la ñu yonent bi jàngal ci xadis bañ leen bëgg a dégtal ni lu jiitu loolu alquranul karim di téere ba tukkee ko fa yàlla moo ñu ko njëkk wax mu joxoñal ñu fa la nga xamante ne mooy la buur yàlla tabaraka wa taala mere aw askan yi nga xamante ne daanoon nañu dagg li nga xamante ne mooy la leen yàlla jokkaloo la leen yàlla dig la leen yàlla wax ne na ngeen ko matal la leen yàlla wax ne loolu mooy la nga xamante ne mooy la leen sant ne ngeen ko matal buur yàlla ne ci suratul baqara baada audu billahi min asheytaani rrajim yàlla buur bi nee na melokaanu gaa yi nga xamante ne yàlla daf leen digal ngir ñu jokk li nga xamante ne mooy la leen yàlla digal ne nañ ko jokk ñu di ko dagg yàlla nee na ñu ñooy ñi nga xamante ni ëllëg bés penc dinaa leen mbugal te dinaa leen duma te dinaa leen tàbbil la nga xamante ne mooy ci safara su jahannam moo tax yàlla ne inna alladina gaa yaa ngi nii ñoo nga xamante ne yaqta'uuna dañuy dagg maa amara allahu bihi an yuusal ah la leen yàlla digal ne nañ ko jokk bur yàlla ne képp ku meloo melokaan bi de xamal ne ëllëg keroog bés pénc sama mbugal ngay dund dinga nga doon ñimay may mbugal ba tax na képp koo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala may na la la toll ni nga war a mën a jëflante ngir nga mën a dagg la nga xamante ne mooy la yàlla santaane loolu mooy li gën te loolu boroom xam-xam yi joxoñ nañ ci ñi ne loolu yàlla joxoñ mooy mbokk ba na bur yàlla ne inna alladina gaa yi nga xamante ne yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusal yàlla buur bi tabaraka wa taala nee na melokaanu gaa yi nga xamante ne dañuy nangoo dagg lépp lu yàlla santaane ngir ñu jokk ko yàlla nee na ñooñu dinaa leen mbugal keroog bés pénc ba tax na ñu nit ñu bëgg leen andil la nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa taala joxoñ ci aaya bi su ko defee ñu bokk kook yéen ñu daal ko dund ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97 point 5 bi iznillahi subhaanahu wa taala yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot pour yàlla ne ñu inna ledina gaa yaa ngi nii ñoo yore màndarga woo xamante ne man yàlla bëgguma ko jéppi naa ko te bëgguma ñu di ko jëfee mooy alledina gaa yi nga xamante ne yaqta'uuna dañuy dagg yaqta'uuna dañuy éliminer yaqta'uuna dañuy bañ a jokkoo maa amara allahu bihi an yuusal la leen yàlla digal ngir ñu jokk ko ah yàlla ne ñooñu daal dig naa leen mbugal ju moo tax yàlla ne alladina yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusal waaw ñu nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa taala na dama digli ngir ñu jokk mbokk ñu di ko dagg yàlla ne ñooñu daal dig naa leen duma na buur yàlla tabaraka wa ca suuratul baqara bu ñu demee xool dinañ fa gis euh, ñi nga xamante ne ñoom la buur yàlla tabaraka wa di joxoñ fii mu doon tekk boo xamante ne ba léegi mooy la leen yàlla dig yàlla ne bokk na ci ñu nga xamante ne dañuy dagg dañuy bañ a jokk la yàlla sant ngir ñu jokk te loolu mooy geño te loolu mooy mbokk waaw loolu mooy rahim bu ñu rahim nag ci arab mooy mbokku bi nga xamante ne yàlla nee na ngeen ko jokk waaw yàlla ne alladina ñoom ñooy gaay yi nga xamante ne yanquduuna dañuy naxsaayal dañuy doyadal alladina yi nga xamante ne yanquduuna nasaxal di doyadal di sàggane ahadallahi la yàlla dëxalantik ñoom min baadi misaaqihi gannaaw bu ñu dëxalantik yàlla ah dëxalante bu dëgër ah yàlla nee na mu bokk ci seeni melokaan wa yaqta'uuna ñuy dagg maa amara allahu bihi an yuusal li leen yàlla sant ne ngeen ko jox ko wa yufsiduuna fil ard ñuy wéy di yàq ci kaw suuf si ah yàlla nee na ulaika humul ñooñu ñooy woy pertanga ñi nga xamante ne perte nañu fii ci àddina ëllëg bés penc buur yàlla dina leen dumm mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaanu ña fi jiitu woon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa melokaanu gaay yi nga xamante ne yàlla dafa am la mu ñoom yàlla am na la mu ñoom mu jaarale ko ci seeni yonent yu mel ni xëytu waa banu Israil yonent yàlla Muusa ma doon seen yonent jikko yu suufe ba ñu nekkee woon buru yàlla tabaraka wa wax seen yonent bi ne ko ah melokaanu gaa yi nga xamante ni ñu ngi dund ak yow melokaanu ñooñu de bëgguma ko te soppuma ko waaw te tikku naa leen keroog ba yalla yónni yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu jokk téere bu mag bi di alquraanul karim buru yàlla daal di ko fa yénkeewal aaya bi nga xamante ne mooy aaya ba mu wàccee woon ca yonenti yàlla muusa ne moo xeetu yonentu yàlla Muusa alayhi salaam waa banu Israil noonu lañ doon doxalee ba yàlla jéppi leen mu daal di leen tikku ne leen alladina gaa yaa ngi nii seen màndarga yu ñaaw yañu nekkee ñooy wan màndarga ñoo xamante ne yanquduuna ahdallahi dañuy sàggane dañuy fecc kóllëre bañu ñu dëxalanteg seeni boroom dañuy géema sàggane di doyadal kóllëre pat accord ba ñu signé woon ak seeni borom min baadi mithaaqihi gannaaw bale leen seen yonentu bi waxe la yàlla bëgg ngir ñu meloo ko ñu daal di jël melokaan woowu taxañ ba mu dëgër teg fee ñu ne yàlla ne loolu nga wax ñun suñu yoon nekku ci duñ ko jëfe duñ ko meloo waaye doyu ci wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yuusal ñuy géem a dagg di géem a éliminer di géem a la nga xamante ni yàlla nee na na ngeen ko jokk ah yemuñu ci loolu tamit wa yufsiduuna fil ard ñu nekk ci kaw suuf si di yàq yàlla ne ñooñu daal tekku naa leen yàlla ne ulaayika ñu mel melokaan bu yées bi hum ñoom tigi alxaasiruun ñooñu ñooy weer partange ñooñu ñooy way pertange ñu ñooy woy perte ñi ñooñu ñoo perte fii ci àdduna waaye ñooy ña perte alaxira accord ba nga signé wanteek yàlla faalewuloo ko respectloo ko doxee ko melowoo ko yàlla ne yonent bi ne ak say xeet bu leen mel melokaan wi ni mel waaw gannaaw bu nga xamee lu leer waaw gannaaw bi nga xamee lépp lu la yàlla sant ak lépp lu mu la tere mu leer sa bopp ba mu leer nañ nga jël lépp taxañ teg fee nga ne yàlla dexewu ma la nga bëgg melawu ma la nga bëgg ah yemoo fa wa yaqta'uuna ñuy dagg di détruire di éliminer ma amarallahu bihi an yuusal la leen yàlla sant ne na ngeen ko jox ko te mufassiruuna yi mboolem seen dëppoo nañ ne mooy mbokkoo ba yàlla ne na ngeen ko jokk bu ko kenn dagg waaye ñoom dañuy éliminer pat accord déxalante bu ñu déxalante ki yàlla dañ koy détruire ba pare ñu jël mbokkoo bi éliminer ko dagg ko te moo ne yàlla daf leen ne na ngeen ko jox ko waaye yemuñu si ñaari ñi teg si ñetteel bi si wa yufsiduuna fil ard ñu nekk ci kaw suuf si di yàq waaw seeni loxo ñu yàq ñu di yàq ak seeni gémmiñ ñu di yàq ak seeni melokaan ñu di yàq ak seeni moyen ak seen xeetu stratégie bi nga xamante ne noonu lañu ñu nekkee ci kaw suuf si di yàq lépp li nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa moo santaane ne na ngeen ko jëmmal na ngeen ko jëfee ah yàlla ne ñu mel melokaan wii ñooñu ñooy way perte ñi fii ci àdduna ëllëg ci biir yowmal qiyaama yàlla nee na dinaa leen duma duma boo xamante ne amul kenn ku leen di xettali yàlla ñu yàlla musal ci melokaan ba alquran joxoñ ci aaya bi amin ya rabbal alamin ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ñu wàccal alquran boobu jox ko aaya alquran bañ leen doon jàngal sànq ah yàlla buur bi tabaraka wa taala xamal ko ne arrahim muallaqatun bil arsh taqul man wasalani wasalahu llah wa man qataani qataahullah rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ne ci maana xadis mu ne ñu géño boobu nga xamante ne mënees nañ ko tuddee géño comme mënees nañ kaa tudde meen bu dee géño lañ ko tuddee mooy mbokk bi nga xamante ne source bi mu ngi bàyyeekoo ki nga bokkal baay bu dee mënees nañ kaa tuddee meen mooy mbokk woo xamante ne source bi mu ngi jógee ko ci ween ba nga bokk ak nit ki su ko defee moo xam ki nga bokkal yaay la di meen moo xam ki nga bokkal baay la di géñoo moo xam ki nga bokkal ndey ak baay la nga xamante ne yàlla boole na leen ngeen bokk géño ak meen yàlla nee na xeetu mbokk yi nga xamante ne liman nañ leen ko nii ki nga bokkal baay wala ki nga bokkal ndey wala ki nga bokkal ndey ak baay mbokk boobu noonu yàlla boole leen ngeen nekkee ko loolu moo tudd rahim mooy geño walla mooy meen yàlla tuddee ko rahim mu bokk ci turu yàlla yi rahim bur yàlla ne yenentu bi salaa sallam ne ñu rahim mbokk bu tudd rahim walla rahim bi nga xamante ne mooy mbokk bu yàlla installé ci diggante jaamaami mbokk boobu noonu yonent bi nee na muallaqatun bil arsh dañ ko aj dañ ko wékk ci arsh buñ ne arsh nag mooy place bu kawe ba nekk fa yàlla buur yàlla subhaanahu wa taala mu doon béréb bu am dayoo fa moom ñu ne béréb boobu ñu wékk ñu lonk fu geño walla meen mu di mbokk mbokk boobu saa su ne taquul day wax ne man wasala nii képp ku jokk man wasala nii képp ma sàmm wasalahullah yan na ko yàlla jokk ci lépp limu mu ak ci lépp li mu nar a yóotu képp ku ma sàmm yan na ko yàlla sàmm ci lépp li muy yóotu wala ci lépp limu mu bëgg waaye ci mbokk boobu la muy wax bi léegi danaan waman qataani képp ma dagg qataahu llahu ko yàlla dagg waman qataani képp ku ma éliminer qataahu yan na ko yàlla éliminer waman qataani képp ku ma détruire ko yàlla détruire ci lépp lu mu bëgg kon ndege mbokk dañ kaa wékk ci arshur rahman ci béréb bu kawe ba nekk fa yàlla mu tudd arsh taquul mbokk bi day wax saa su ne man wasala nii képp ku ma jokk képp ku ma sàmm yal na la yàlla jokk ci lépp li nga bëgg yal na la yàlla sàmm ci lépp li nga bëgg yal na la yàlla antul ci lépp la nga mébét yal la yàlla àggaloo ca la ngay yóotu lépp li ngay yóotu yan na tabbi sa loxo waaye bi léegi mbokk bi danaan waman xata ani képp ku ma dagg xataahu llahu yan ko buur yàlla dagg yan na ko buur yàlla ilimine kon yow mi nga xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel fii ci réew mi fm 97.5 ngalla waay nañ leen jël aaya alquran ba yàlla ne ñoo xamante ne bokk na ci ñi ma jéppi te ñu doon ña perte fii ci àddina ëllëg bés pénc ñu war bokk ci ñu pert ñi mooy ñu nga xamante ne dañuy dagg di éliminer la ma sant ne nañ ko jox wa yaqta'uuna maa amara allahu bihi an yuusal ulaa'ika humul xaasiruun la yàlla wax ñoo xamante ne dañuy couper dañuy dagg relation ba yàlla ne nañ ko jokk ci mbokkoo bi yàlla nee na ñuy géem a dagg loolu di ko géem a éliminer di ko géem a détruire ñooñu ñooy wey perte ñi fii ci àdduna ëllëg bés amuñu dara lañu am kom la ñuy gañe waaye yonent bi nee na geño boobu wala meen boobu wala mbokk boobu di rahim muallaqatun dañ ko wékk aj ko bil arsh ci arsh ba nga xamante ne béréb bu tedd la fa yàlla taquul mbokk bi danaan man wasala nii képp ku man wasala nii képp aar képp ku ma képp ku ma toppatoo yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla toppatoo yal na la yàlla jokk ci lépp li nga mébét waaye bokk na ca la muy wax mooy wa man qataani képp ku ma dagg képp ku ma éliminer képp ku ma détruire qataahu llahu yal na ko yàlla éliminer yal na ko yàlla détruire yal na ko yàlla yàq kon nañ leen bokk ñuy sàmm mbokkoo bi nañ leen bokk ci ñuy aar mbokkoo bi nañ leen bokk nekk ci képp koo xamante ne day détruire mbokkoo bi nañu téye ci loxoom ñu ne ko lii kenn du ko yàq kenn du ko éliminer kenn du ko bundu xotal wala kenn du ko yàq du yàqee sama kanam du fekk fu ñu koy yàqee du ma fekk ki koy yàq di fekk fu muy yàqoo kon képp koo xamante ne njortu nga diggante mbokk diw ak diw de am na tuuti ñagas-ñagas juunoo xaw na faa dugg na nga sol sa dàll dem defar diggante bi su ko defee nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy defar mbokk dañ koy sàmm bu dee kàddu la nanga ko wax bu dee jëf la na ko jëfe bu dee action la wala stratégie nanga nga dox na nga jóg defar mbokkoo boobu su ko defee mbokkoo bi bañ a yàqu sa kanam mbokk yi yal nañu yàlla may dégg ak topp waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay war a tas xibaar ñu ngi ni taxaw war leen jibbal béréb bi ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuuna alqawla ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir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 aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu